ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك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 ni mu mel du kenn ku dul Cheikh Mouhamadul Mansour borom daara ji nga xamante ni boo ne ko jàkk sa xel dem ci Cheikh Mouhamadul Mansour borom daara ji ñaanal ko yàlla mu yàgg fi te ànd ak wér muy Cheikh Habib Guèye mi nga xamante ni yàlla dogal na mu xàddamu Cheikh seex seydal Cheikh Seydil Mouhamadul Mansour la di jàmbaar joo xamante ni fii mu nekk ci jaxaaw diggante caali ak Cees ak li ko yëpp liggéey lislaam rek moom la fiy def ñaanal ko yàlla defal ko jàmm ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam seen émission wàccaayu gàmm nag tey ñu jàtt toog ak moom ngir fa yéene rek dégg ko ko sunu micro mu laabiire nu ci guddi gi nu jëm di guddig yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye di guddig Seydina Muhammad gi nga xam ni saa bu weer wi teroo ku ne dina gis njabootuk si Sidi Hadji Malick gi ni nu koy taxawoo ak ni nu koy waaje mu bokk ci jàmbaar yi waaye bokk ci keno yi tarixa bi boo ko defee rek bala nuy sori ci kàddu yeeg nuyoo yi ñu jox ko mu nuyoo ñu dugg ci dugg ci waxtaan wi incha allahu sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar. nuqaalisu tey yaatuna li hudurikumul majid wa majidu fillah wa majidu min ahlillah naqulu asalaamaaleykum wa rahmatullah bokki jullit yi teew ci jataay bi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di ci jiital sopp ba Cheikh Ahmed Bamba soppe maam Cheikh Ahmed Bamba suñu doomu baay Njaay Xasaayit ak caméraman yim àndal sëriñ Dudu ak sëriñ euh, Ndiim ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal waa xadara bi yëpp a ngi leen di nuyu ñu bokk jotaay bi ak yéen. macha allah rabbi sëriñ bi xam naa ne bala nuy sori rek mooy dañoo bëgg rek nga laabiré nu tuuti ci guddi gi nga xamante ni moom la ñu jëm muy guddik sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa sang ba baax ba lan la wax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak bu weer bu terew ni ngeen koy waajalee bala noo dugg ci ni nga ko war a waa ni nga ko war a yaatale ci mbokki taalibe yi ak mbokki jullit yi nga xam ñoom nga ko war a àndal ki nga xam moom la ñuy waajal guddeem tey buñ la doon laaj jikko yi ak li nga xamante ni moom la ko yàlla tànne ak tagg yim ko tagg lan nga ñëwee laabire moom moom moom moom sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu ko defee rek eh, Cheikh eh, Cheikh Habib ñu bàyyi la ak kàddu gi nga laabire nu ci jikko yi yonent bi sallallahu alayhi ak li waral ñu waree na ñu war ñu war koo wooteel guddi gu tol noonu muy guddi gàmmu. ah tabaarakallaahu sëñ Ndiaye xasaayit eh, yow danga baax rek di ko laajte pour nit ñi rek waaye yow kenn gënu laa xam yeneen bi sallallahu alayhi ku bëgg yenent bi sallallahu alayhi wa nga euh, yenent bi sallallahu alayhi moom mooy gën gi mbindeef euh, tabaarakallaahu cheikh seydi haj maalik radiallahu taala mi nga xam ne euh, ñëpp d'accord nañ ne moo raw ñëpp mu def ci benn xasida boo xam ne benn téere boo xam ne ñu koy wax xilaalu sahab am beneen tur ñu koy wax miimiya mu def ci junni bayit ak lu teg Euh, lépp mm, euh, commencement ba ba fin ba lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ci la ci wax euh, mu jàngale ci tamit tabaarakallaahu gàmmo ne gàmmo nañ nañuy daje di jàng alquran di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak saraxe ak tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak def lu baax ak wax ko te moytu lépp loo xam ne lu xaraam la ci bërëb ba ñu moytu ko ci noonu la ko Seydi Hadj Malick jàngale bu ko defee fa tabaarakallaahu ñu ngi woo julit yëpp ci Tiwaawan euh, na na ñëpp teew Tiwaawan euh, xam ne tabaarakallaahu euh, nitu yàlla fu mu tëdd gàmmoo fa lu am solo lay doon te gàmm nag yàlla moo jëkk gàmm ndax yàlla wax ne yonent bi ne ko Eh, inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi mu ne yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa tasliman te julli googu yàlla julli ci yenent bi digal yi ñu julli ci yenent bi loolu gàmmu mënu ko paase. waaw tabaarakallah. koy waajalee jamono bu jot at mu waaw waaw ko def waaw xam nga ñun dañoo juddu ci loolu. ci tariqa bi juddu ci kër Seydi Hadji Malick yaroo ci. Euh, fekk suñu maam yi daan. Euh, taxawee bisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu di ko taxawee suñu sëriñ itam Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour radiyallahu taala anhu euh, xam nga moom dimension bi mu doon taxawee ci gàmmu kenn mosu ko gis euh, bu bu ñëwaan rek moom du wax ci kenn yàlla ak yonent rek lay wax yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa nekk ci téere maamam bii di xilaasaab di ko toj façon boo xam ne nii kenn mosu ko déggee noonu waaw ñëpp kontaan ci xam ne kii daal moo xam dimension yenent bi moo bëgg yenent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu lépp nag mu ko nampee ci maamam bu tedd ba Sidi Haj Malick si radiyallahu taala anu waaw ñu fas yéene ànd ak taalibe yi comme nañ ko daan defee yoon bu mujj bi passé nii rek yóbbu nañ 15 million def ko ci ay bernde ren nag bëgg nañ mu ëpp ko lool waaw dana dana ko ëpp sax parce que fi mu waaw fi mu toll nii njaboot gi taxaw nañ ci ba tabaarakallaahu lépp macha allah incha allah danañ fa yóbbu lépp lu lu fa war lépp lu nit soxla soo ñëwee ca daal ba incha allah di nga ko fa fekk te danañ fa jàng alquran danañ fa def ay salaatul fatiha danañ fa séddale ay bernde ci ci biir dëkk bi yëpp fuñ fu fépp jot rek dañ dañ fa yóbbu berne yi nit ñi jox do gani Seydi Hadj Malick gi yàlla tax. macha allah mhm. bala noo tàggatoo rek. waaw mhm. waaw radiyallaahu taala anu Cheikh Seydi toujours li may wax rek mhm. man euh, bi may dugg ci loxoom boobu manuma dara aw ma dara ndax booba fukki at ak juróom-ñaar laa am muy 17 ans euh, yàlla dogal sama maam yebal ma ci moom ba ni muy génn àdduna tàggale ko maak moom moo wax ci làmmiñu boppam ne ma gërëm naa la mosuma la jéppi mosuma la gëdd mosuma la mere sëriñ Mansour bind na ijaasa itilaax jox ma def ci tampon Seydi Haj Malick tampon Seydi Boubacar si tempo boppam Cheikh Seydi ma Mansour jox na ma ay yére jox na ma sajaada jox na ma kurus jox na ma satala jox na ma euh, secret bu bët di tege jox ma secret bu bëddul tege wax ci man lu rëy ne ma ku la gis altine ak àjjuma yaramam xaraam na safara mu dem ba ci biir mu ne ma sax léegi ku la bëgg sax yaramam xaraam na safara ndax suñ cofeel ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak suñ cofeel ci yàlla ak suñ cofeel ci julliti yàlla yeeg alquran loolu mën na nekk te dañoo yéene jullit yëpp jàmm bëgg nañ lislaam bi ñëpp nekk ci jàmm jullit yëpp nekk jàmm juboo nekk benn di yëgatee ndoor di tërala ndoor yàlla na yàlla doolee doolee lislaam doolee taxawal lislaam ah tabaarakallaahu lam lam waxoon ci man yëpp tam fi ne feeñ na yal yàlla yokk leeram taas ñu suñ barkeem. amiin amiin xam ñu bàyyi la bala ngay tàggatoo rek ndax da ngay jàmbaare lislaam yoo xam mhm. ne. ci taxaw. xadim xam nañ ne euh, ñun suñ dund yëpp ci mbiru liggéey lislaam rek lay doon te kuy liggéey lislaam ah bokk na ci ngay tabax juma euh, tabax daara tabax euh, doomu aadama jël doomu aadama yi raxas seen xol duy ci leer yenente bi sallallahu alayhi wa xamal leen kan mooy yenente bi sallallahu alayhi wa xamal leen lislaam loolu mooy mooy mooy suñ mission fa tabaarakallaahu foofa gum nañ fa lu mat ñaari milliards deux milliards dem def na fa def nañ ko fa sumb nañ feneen itam def nañ fa lu mat six cent millions sumb nañ feneen it def nañ fa lu mat quatre cent millions lépp nag tabaarakallaahu man boolewuma ci di yalwaan ak di laaj nit ñi dibal ak di saraxo man maay def su ma xëyee ba ngoon jot lépp loo xam ne nii rek am naa ko rek ma def ci ak li nga xam ne nii moom moom liggéey yu ma samp yoo xam ne dina ma jural dara luñ fa jëlee rek lu ma fa jëlee rek ma def ko ci néegu yàlla yi. Mhm. waaw jërëjëf jërëjëf kon nag ñu ngi woo jullit yëpp ci bis bi di ñaanal yàlla itam sa seen télé bii di Thiès Prestige di télé boo xam ne tabaarakallaahu bi ngeen koy doog a door ñun ñoo ci jëkk ñaan ndax yéen suñu xarit ngeen suñu wëllëri ngeen benn ngeen ak ñun euh, fu ñu leen gis dañ leen di fonk bëgg leen sopp leen teg leen ci kaw euh, lu mbooloo mi bëri bëri bëri yow soo dugg see rek danaa la wax yegsil sama xarit nga sama waay nga sama mbokk pas-pas nga ndax mbokk pas-pas mooy lan ki gëm tarixa nga gëm tarixa mu gëm nitu yàlla nga gëm nitu yàlla parce que tamit ñun euh, ñi gëm tarixa ñun ñëpp ay benn lañ ay mbokk lañ. Mm-hmm. jullit yëpp tamit benn lañ mbokk lañ. jërëjëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. Euh, mbokk yi mi ngi noonu mbokk yi mi ngi noonu fa tabaarakallaahu ñu toogoon ak Cheikh Habib Guèye di muxaddamu Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour di jàmbaari lislaam joo xam dégg nga ko waxuma la sax njëriñ yi mënu yi mënu labiré ci guddi gi nga xam moom la ñu jëm di guddi gàmmu waaye naal yi mu naalal lislaam rek ak li nga xamante ni moom la fas yéene def muy mission ci àdduna nga xamante ni génnul xayrukum man taxallamal Qur'aan wa xallamahu defar ay doomu aadama tàggat leen waaye tarbiyee leen waaye di taxawal ay jumaa ak ay néegu yàlla ak ay jàkka yoo xamante ni bëggul rek jaami yàlla yi di di di di di di di di jàdd wala ñuy ruur toolu lislaam bi kon nu koy ñaanal bu baax a baax a baax muxaddam yow itam yàlla na yàlla guddal saw fan te yàlla biir ndax ni ñu ñëwee bett nanu la waaye xam ne ci kër gi la ñu bokk tax nga nangul nu ko ñëw toog solu jàkkaarloo ak ñun nangul nu jataay bi yàlla na yàlla barkeel kër gi këru daara la këru alquran la këru diine la këru lislaam la képp koo xamante ni bëgg nga lu baax rek boo fi ñëwee na nga ko bëgg noonu nga koy amee incha allahu rabbi ñu yàgg lool nag mu yàgg noo teg loxo yàgg noo wax ni ca kanam ca kanam ca kaw ca kanam rek te boobu ba tey ñu ngi gis ay ñaanam kon nag ñu ngi ne ñaanal baax gay yal na yàlla guddal saw amal nga nu njëriñ lool ci saayir ak ci baatin su ko defee nu nuyu sunu caméraman macha allah alhaaji duudu waaye nunu sunu safoor alhaaji ndiim mi nu àndal moom itam jox leen rendez-vous rek ci beneen jataay geneen kilifa ci wàccaayu gàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك